ak El Hadj Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yéene nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal di koy door ak enquête yéene kaay yéene kaay gi duñu xam ne eh, jamono ji na lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu ko ñàkk gi eh, ci réewum Sénégal tàmbali nañ ko yéene kaay bi di la Tribune di ñu xamal ne eh, jamono gi kay ñàkk ga tàmbali nañ ko exclusive yéene kaay duñu xamal ne Abdoulaye Diouf Sarr a ñàkk moom kay waaye tamit jël risque bu rëy daal lépp loo ne rek jëm na ci ñàkk gi ci réewum Sénégal tàmbali nañ ko Sud Quotidien yéene ji kay réewum Sénégal sinon faar lañu laal jëm na ci wàllu ko ñàkk gi ngir xeex jàngoro ji nga xam ne rek moom moo di covid 19 ca jamono jojee na ay yoo xam ne rek ñoo nekkee ci réewum Sénégal lépp loo ne wàlluk ñàkk maanaam daal ñàkku nañu te loo xam ne dal nañu leen jamono ji nag réewum Sénégal mën nañoo dalal seen xel di loo ne rek jëm na ci wàllu ko ñàkk geeg yu ni mel ca jamono jojee yéen gi war nañ cee gaaw ndax réewum Sénégal démb lu toll ci euh, fukk ak ñett yoo xam ne rek jot nañoo ñàkk seen bakkan ci jàngoro covid 19 gi yéen kaay gi duñu xamal ne jamono ji kay ñàkk gi yàkkamti woon nañ ko lool direct news yéen kaay duñu xamal ne

alxames ji war naa jàkkaarloo ki nga xam ne rek moom moo di attekat bi bu dee nag Ousmane Sonko lépp loo xam ne rek jëm jëm na ci mbaraanum kiiraay yéene kaay gi duñu ñu xamal ne maanaam daal mel ñu koy muri ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ànd ak moom tey nag nekkee ci Pastef ñu bëri ñoo xam ne rek ñoom ñoo di attekat yi kàddu yi nga xam ne rek rek jot na koo yëkkati dafay xam le ne Guy Marius Sagna nanu ko bàyyi ak ñeneen ñi nga xam ne rek teg nañu leen loxo maanaam daal lu ñuy njaaga moom Clédor Sène mooy njaag yéen kaay gi duñu xam ne bu dee Assane Diouf nag ba mu jàkkaarloo attekat yi moom kay ba ñu ko laaj silence bi la maye maanaam daal dafa lànk ne du wax vox populi yéen kaay duna xamal ne ak lu mën di xew daal coowul Ousmane Sonko mbir yi kay ma ngay gën a wulee ñaay ci réewum Sénégal ki nga xam ne rek moo di njiitu réew mi Macky Sall kàddu yi nga xam ne rek jotoon na koo yëkkati ci RFI moom kay dafay xam le ne lii dal Ousmane Sonko maanaam daal yéenewu ko waaye nag mbir mu ñàkk fayda la ko jàppee moom kay yéen kaay gi duñu xamal ne Ousmane Sonko nag daal di koy tontu daal di ne ne daal mbirum kompaloo mii nga xam ne rek am na xam nañ ne njiitu réew mi Macky Sall maanaam daal eh, képp koo xam ne rek bëgg nga koo yàqal wala képp koo xam ne rek taxaw nga nga ko ko ci na ko amee maanaam daal ñi nga xam ne itam ña nga doon wër tawaaf maanaam ci jumaay Tuubaa ji yéene gi duñu xamal ne jamono ji nag jàllale na leen ca kaso ba l'observateur yéen i kaay du ñu xamal ne mbir mu doy waar mi nga xam ne rek amoon na ci Pikine tali bees yéen i kaay gi du ñu xamal ne mbir moomee la ko waral muy jëkkër ak jabar ji nga xam ne rek jotoon nañoo faatu bokk na ca àndub cuuraay maanaam daal cuuraay gu ñu taal saxaat say sër sëli gi du ñu xamal ne ñu fatt amuñu fi ñu nooyee mu nekk nag lu doy waar ak El Hadj Ousseynou